السلام عليكم ورحمة الله مكي نيغلا يريد دي زيار لان بالو الحق يعني برامي سبحانه وتعالى بولي نجيغل حديث تايب دفعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب حديث بي كيكو نتلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ki jàngul maanaam ki nga xam ne dara nekkul ci xolam ci alquran fii jaw fii ay fii qalbi koo xam ne ci xolam dara nekku ci ci alquran nee na kooku dafa moo kër gu ñu màbbal ba maasale ko ñoo yam waaw nit mën na jàng alquran mais xolam amul lenn lu ci nekk lu muy jëfe lu dëppook alquran maanaam jàng alquran waaye gëmu ci dara jëfewu ci dara wala mu doon koo xam ne jàngu dara ci alquran yorul ci xolam benn comportement boo xamante ni bu alquran di jàngale la kooku moo kër gu ñu màbbal ba maasale ko ñoo yam xam nga gu ñu màbbal ba ko kenn mënu koo jëfandikoo aw suufa fay des mooy mooy mooy mooy fu gent place bu gent xol bu alquran nekkul moo place dëkk bu gent wala kër gu gent ñoo yam waaw suuf soosu day umu sax faf nag ku fa toog da am dara dara du barkeel ki du ki dara newul ci xolam ci alquran it noonu la mel kooku dara am barkeelul ndax xol bu mel ni kër gu ñu ràppal mooy xol boo xam ni dara nekku ci ci leer dara nekku ci ci baax kooku dara am barkeelul dara am yiwul te it képp koo xamante ni yaa ko jël taf ko ci sa bopp jox ko sa lepp yi sa dara du barkel ndax ku andul ak yàlla doo dem ko kooku andul ak yàlla nag yal ci yàlla musal bu ko defee ñu góorgóorlu bu baax di jàng alquran xam ne alquran jàng ko farata la ci jullit yëpp bu ëllëgee yàlla subhanahu wa taala lim ñuy laaj mooy lam lay njëkk a laaj baax na jàngoon nga alquran ndax jullit bi jullit te jàngul alquran man te nekk c'est impossible Euh, ak ku mu mën a doon foog mu jàng alquran góor ak jigéen a ci yem boo léegi yàlla li mu njëkk a laaj moo jàngoon alquran bu dee jàngoo léegi nag mu ñëw ci jafe gaak ñoom seen boo ko jàngul moom doo génn premier tour loolu moom ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk yi di ci góorgóorlu di ci nab na bi di ko jàng bañ koo jàng rek njàngum nañ ko jekkoo déedéet di ko jàng tajwidan wa tartilan wa itqaanan jàng ko ni nga xam noonu la ko yàlla wàccee ci yonent sallallahu wa sallam di ci def yitte ji def effort ndax loolu farata la ci jullit yëpp ñu bàyyi ci xel bu baax ñu ko jàngee di góorgóorlu di ci jëfe lu ñu mën suñ kéem kattan incha allahu taala dinañ dajeeg yërmandeg yàlla te it yàlla dina barkeel suñu dund yal nañu yàlla boole dimbale qul qawli hada wa astaghfirullah al azim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa